amuñu royteef bu dul ñoom amuñu it xemmeemteef ci ñu dul ñoom ndax ñoom ñoo wax dëgg ñoom ñoom ñooñu ñoom ñoo wax dëgg ñoom ndax seenu juddu rafet na seen xam-xam na ñu jaay lépp topp Serigne Touba di bokki Serigne bi ci wàll yépp wattu seen diine sàmm ko ci ngor te xam ko sëñ bi woote ñu wuy si ko bàyyi seen lépp topp ko kon gisuma leneen lu fi nit war a wane lu dul ñoom te it nag ma gis ne nit kuy dund moom manes na laa roy waaye nag exemplaire moom buñ koy joxee dañ koy joxe ci ku fi nekkul mooy ku dund ba jógee fi te mu benn tâche ndax nit kuy dund te bàyyi koo fi moom dañuy wax ne bëccëgu weeru koor la rek lu ne xaj na ci nit mën naa xëyee baax ba yàgg nga ne bett na waaye daal ñoom dañ fay nekk nekkal fi yàlla nekkal fi yonent bi nekkal fi Cheikh Xadim ba bàyyi ko fi diine jëmu leen ak bokk jëmu leen yoonu murid bi bokk jëmu leen kon kuy joxe misaal ci ñoom ngay jël si loolu lañ ci jublu ci tànn bis yi di leen ci waxtaane ñoom nag mag ñi man dama ci am ndigal ndax sama sëriñ ci boppam moo ma wax ne woo ma bis ci Daarul Manaan dama ñëw siyaare si ko Daarul Manaan te pas-pas yi mag ñi jéem ko roy daa am sol ba delluwaat ca dal ba sëñ bi yónnee woolu woon na ñëw mu ne ma kaay saal bi fees dal mu ne ma santal yàlla ndax mag ñaandoon ak Serigne Touba dañu laa gërëm na ma Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari moom ma ko wax ak ya ca xew ci ci moo tax ma it mooy def bis dama koy tuddee koo xam ne buñ ko waxtaanee nit ñu mën caa ndax defe naa li ñu wax ci jikko yi sëñ Mbàkke Fajama fii kenn ku ne mën na ko yóbbuloo mën na ko ko bëgg laa ngir yu bari benn yoon yi laa ko mos a gis fii ci buntu palaasu Mahamadan Sëy mu sol garam bu baax bu rafet yor ab 500 504 dafa na bu buule la bu ma jumoo mu taxaw ci wetu kër Mahamadan Sëy am ko muy lëng naan ko kaay ma am lu ma la wax ba walla ba ma gisee dama tiit daana sëy laa tamit ndax booba xale laa maa benn yoon boobu laa ko mos a gis waaye ma bëgg ko di ci waxtaan ak Cheikh Abdou Samad moom sëriñ Jean yi nga xam ne moom sëñ bi da koo ñor ak ñun sëñ bi moo tax nee naa ko boo gis nga li ma gën a neex ci yow mooy Cheikh woo taalibe yi wóolu ñàkkoo leen a wóolu ndax am na nit ñi ñoo Cheikh Lo yow nag yaa ñoo may bokk di naanandoo te te da ngay Cheikh yi ba noppi te loolu yoon ñoo la ko jox xam nga loolu du ak nite ndax di ngay Cheikh Lo moo lay jox addiya yi ba noppi nga ko seexlu xam nga loolu nit la bu kooku xamee loolu ndax bu la joxee nga jël way lëggee lu moom way lëggee loolu ba noppi di ko seexlu mu ne ko yow nag seexlu woo taalibe yi te tooñoo leen ndax yaay bokk moom ñoom di xew moom ku mag ci moom laa gisee koo xam ne it moom Cheikh Abdou buy waxtaan ba bàyyi jàmboor yi lay wax sax di bañ a baax la sëñ Bakki Fadiama mii amul jotaay bu ñuy toog ba fan yee am na mbind yoo xam ne mbind sëñ Bakki Fadiama moo ko yónnee daaw toogee dañ koy waxtaanee am na bis ñu toog ak sëñ Daawru mii mu ne ko sëñ Bakki de mbiram bi mu fi bàyyi ko doon naa ko seet di ko laaj. ku jéem a xool waaye ba ma gisee dama ko laaj ne ko wax béréb bi lan moo fi gën nee ma ne ma xasida yi di dara ëpp ko fi doole nee ma ne ko ah goo goo ma ci mën a baaxee mu ne ma nooru daay lay nekk masaalik bi am na fi na waaye la ca a yéeme ma ñëw di wax sëñ Saaliw mu ne ma salaaw de bi ma njëkk am moo ma ko bindal loolu suñu sama taxaw kon am na lu mu mu nekk kon waxtaane ko yàlla boole maag ak njabootam yi jaxasoo ma gis ñoom tedd ngay jikko da tàmbali Serigne Cheikh simple ba ci ñoom ñëpp naw leen ci diine naw leen ci ak baax tamay wax dëgg yàlla ku waxtaanee rek laay bëgg ndax adduna moom li may wax adduna ñëpp a ko man bu may wut nit ku waxtaanee laay ndax adduna moom business bii ñëpp am na Serigne yoo xam ne bu dee business maa leen ndax business kon business taxu maa ku ma tane ci jikko ju sell mu man laa roy ci baax kooku lay wër man ndax li tax sëñ Mbakke amuloon complexité kii wax na ko léegi fi ne da gis sëriñ boo xam ne dama yàlla jégal bu ko ko adduna waree wut si day jéem day jéem a defaraat ub saalam maanaam won ko ne ñëw te yow ñëw ginnaaw adduna lay wut si ci yow te dangaa sintu mu jox la dara jërut incarné adduna won ko yàlla bu ñëwee fàtte addunam topp ci yow yi ñàkk yeewu googu fi ne moo dal ñu bari ba ñuy wut lu luxe te ki ñëw gaaree oto téeméeri million boole di mooy yàlla yor koppar for baab kalpe bu mu denc lu diis bëgg la ko jox ñoom nga di ko woon néeg yu set te moom climatiseur da koy dérange ngay wane ne yow am nga fuy dund amul njëriñ sëñ Mbàkke nag boo ko séenee def xam ne moom complexe baaxul te loolu jëm moom photo yi ma daal di waxtu wu nekk màggalu Tuubaa gi boo seetaanee image yi boo gisee jëmm jéeg toog yi weeg melaw yi da ngay xam ne kii nit ku jàpp ku baax ni lii nag lañ ci jublu noonu daje ci jataay yi ndax man tooguma di wax ci kenn dama wax ci dara ñi nekkoon ci sëñ ba sëñ bi gërëm leen la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la sëñ bi baanaam wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ayaa xaadimal muxtaar laa tansa saxaabahu ba man yenn soo moom fal maa tax man moo xam waaw. nii sëñ bi defar xam nga sëñ Amadou Fa Jama ñang léegi sëñ la mi wax na ma tas la takkaat la wala ma cuut la xam nga loolu ci koo xam ne bi ko sëñ bi wooyee dana ko kaay jébbulu mu ne ko lu may dox di jébbul ndax bu ma laa koy dayaale ak seen bi ne ko déggub dayaale am na solo waaye fekkee jataay ba gën a wóor te jaayantee ko maye mu jaay lam amoon ci diggante ak sëñ bi moo tax lii sëñ Ndiogo wax ndox dégg nga loolu dëgg la loo xam te xamoo sëñ Tuubaa xamoo dara loo xam te amoo sëñ Tuubaa amul dara xam-xam ñaar lay jariñ nit fexe ba jub ak mus te boo amul sëñ Tuubaa ci dam dang ngay dëkk a xam kenn du la ko laaj te fi ne da nga gis kuy contre sëñ Tuubaa ay gone koy luyee bay jigéen bay fokkat teg ko ci terrasse di ko jàng lool di ko fay bu fekk mënoon naa am lépp loolu ci sëñ Tuubaa te ay gone koy luyee am na ñoo xam ne fi ne ñeneen luyee lañ leen di fayee ci mooy yàlla lañ koy jëlee waaye ginnaaw amoo moyen ndax war nga ginnaaw sëñ bi ku ne lay jiital te boo toppoon ci sëñ bi am ci dangay te nit bu jaarul ci yoon wi mën a jaar makaarim axlaaq daje ci moom ndax kañaan ku nekk sa xol doo dem kon suñ mbàkki lii moo tax sëñ Cheikh mi li tax waxtu wu ne laa koy waxtaane gën ko naw moom xamee wut taw xamee wut naaj waxtu wu ne bu ko fi fekkee bu julli jotee ci jumaay maamam ji lay jotee loolu sëñ Tuba la ci doon sëñ mu lay musa nee na sëñ Tuba moo daan jiite ci jàkka yi di woor bëccëg yi ba noppi di di jàng alquran yaqumu layaali raakian ba'da sawmi yusalli imama kon mooy jiite waxuma la julli ji ci jàkka ji waaye sama classe gi yëpp bu jàkka ji nekkoon ci biir kër gi bu bu bu xat situation bi soppi ko tam xat ku julli jotee danaan baax na nag ngeen a dox julli moom dem fa kon loolu woon yitte jooju diine jooju mu ak baax ak bëgg sëriñ bi ci biir te buy wax yow mu fenc ma soppal ko sama bopp jàppal ko sama bopp wax naa ko léegi ku ma tanewut man damaa jéemut a ànd ak yow ku ma tane lay wut ku ma tane ci yàlla man ma caa dimbali man ma caa ñoddi ndax bu doon àdduna képp la wala gër mi ne sa kër maam ngay toog te tax nit ñi ba seen bopp nga leen mooy ku leen tane tamal leen a ñoddi ci yàlla jikko yu baax yi nag buñ delloo si mag ñi mu del si waaye bu léegi-léegi di ku ne jamono ji yàqu na ku baax amatu fi wala déedéet ñi ngi juum waxtu wu ne am na ñu fi nekk di dundal la maam ñi yoroon te jaayuñu seen diine jaayuñu seen ngor jaayuñu seen judd jaayuñu seen xam-xam moo tax léegi-léegi ma dem ba ci ñiy attaqué ci Sëñ Tuubaa yi dañoo waroon a am ci du toll ni koy attaqué tudd turam waaye boo ne mbàkke mbàkke yaa ngi ci ñoo xam ne waxtu wi ñu di tudd ñu ngi naafile ñu ngi jàngal xuraan ñu nga jàngale doy loolu leen seen maam bàyyee woon kon boo leen tuddee tooñ nga kon nag buñ bàyyi buñ maasale loolu nag la ñuy la ñuy gëstu waxtu ne moo waral ñu jël bis bi féetale ko seen seex di sant ñëpp nit du am complexe ci sëriñam te jamono jii bare na ñooñ gisee ku leen defar dara man nañoo bañ a tudd seen kër sëriñ nga gis ñooñ mën nañoo gis nga ab bi moom day fexe bam warmal ñëpp waaye féete kenn noo fonkee sa sëriñ nag bu dee dëgg ci yow da ngay warmaale kilifa keneen ku mën a doon waaye ba fi sab tool ne ci tool yi jàmboor it du dara am na ñu fi ne kenn xamul seen sëriñ ndax sëñ bu xew baa nga woote baa nga yëngal ñoo la fay organiser di waa koy dama ko ñëw ko jégar-jégar yi foo bokk mu ne ba dëw wala foo bokk waa ko sëñ loolu ab murit day identifié wu ci sëriñam am ci fierté kuy sa sëriñ nga ne sëñ Abdou mu sëñ Mbacke Fadiam wala sëñ Cheikh mu sëñ Mbacke Fadiam loolu la nawee daw foo tudd sëñ Mbacke Fadiam ronko ñoom foofu ndax nit day day day fonk seen mais am na ñooñu leen miin miin xamoo seen seen te ne léegi-léegi ma gis benn ah sa waay tey suñu kër nga ñëw nga xam ne maa ngi doog a xam ne kii mooy seen bi ndax du ko tudd du ko waxtaane du ci giñ du ko wax kon nag ku ko naw lañ ku bëgg kër gi la ku fonk kër gi la te nit ku la am da koy fonk moom ci fonk gi mu fonk kër gi ci la ko ñëpp fonkale si yàlla xam na ne bu ma toogee ci kanam si yëpp du sama sax bu dee sëñ Mbàkke Fadiam damay lijjanti nu ma yónnee daaru lijjanti ba mu ba mu ba mu jógee foofu ndax bala faa jógee dana tàgg dana tàggoo suba fonk Serigne Cheikh fonk njaboot bi yëpp waxtu mu nekk bu ma ko wooyee téléphone mënu ma ko jot bu bu coupé bu ma nekk koo doon jokkoo danaan ma sëñ Cheikh am kon nag sëñ daaru noo koy sant moom di ko gërëm ci taxawaay bi fonk gi fonk sëriñ bi ndax sëñ bi wat moom loo ko am am te du la jariñ wala ba demee ci docteur bi mu bind la ordonnance nga def sa poos te demoon naa hôpital seet nañ ma ana ordonnance mi ngi sax poos boo wér pas-pas ak tasier mooy jariñ nit te jamono jii dañ fay bëgg a dégager ak taalibe ak taalibe dafa neex ak taalibe dara dàqu leneen lu tug taalibe amul njariñ biñ ko jéemee moderniser nag de seet ay ñu jël indi ak i xalaat lay indi melo ndax daa bari ñooñ li am na ñooñ ko gëm kenn te ku leen gëm lañ bëgg te defuñu lu ñu leen di gëmee amuñu ko taxit ñu mën leen ca gëm coowul kese di tox ñu gëm si kenn bu dee werante ñëpp ko man bu dee xuloo ñëpp ko man ginnaaw yow defoo luñ lay gëmee kenn du la topp te dañ lay tàggaleeg sab sëriñ bëgg nga topp leen boo leen jox am nañu dañuy araamal addiya te lu leen waaye sarax ñu jël xam nga ne addiya gën a fort te ku la sarax nga ne fa tabarakallah jërëjëf ma sama ko set na bëgg ku la fréquenté te mënu koo am ñii yor deri bukki yi yor ay yi bukki ba noppi muuroo deri bëy ne ci biir yoon wi di nëbbu too ko làqatu bu ñu toogee fu ñu ragal nit na sëñ Tuubaa mu morom bu ñu wéetee di soboote ak a yàqate bu ñu leen indilee borom pas yi borom ko seet yi ñu man ci jëriñ ndax xam nga naan wax ju gën a rëy waa kër sëñ Tuubaa bu boole ci kenn yónnee bul génn daje kenn loolu dafa am ku ñuy wax sëñ Mor Diouf Diatty sëñ Tuubaa da ko mos a yónnee mu génn daje Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall yónnee ko mu bàyyi yónnee sëñ Tuubaa bi dem dox yi yónnee Cheikh Ibrahima Fall ñëwee sëñ bi ne ko nga fa de mu ne ko Cheikh da laa dajal mu yónni sëñ Tuubaa ne ko Ibra lay def rek waaye ba dox nga yónnee bi Ibra Fall mu ko moom laa jëkk a dox mu ne ko ndox ndax lu ma duy mu bëkkoo fen yónni gi ma la yónni nga dem rek loolu la ko war waaye moom ndax lu waay duy rek Ibra Fall bëkkoo fen kon loolu boo ko xammeewul <coughs> sëñ Mouhamadou Lamine Gaye daana wax ne la tàmbalee ca maam maaram ba ci suuf lu ma ci boot kenn di kaata kenn waaye Cheikh Moustapha la fi teg waa ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa delloo war ma xam na ne da nga gis wax koo xam ne ëkk gu sëñ Tuubaa wéeru buñ ko xobbatee jox mu ne tawféex xam naa ko ndax ëkk gi sëñ Tuubaa ci wéeru ngeer gi sëñ Tuubaa ko ci jox aw fegg mu ne sëñ bi laaloon na ko nga sant mbub mi catul sëñ bee ko ku mën a fonk yooyu wala mën a fonk deret ci sëñ bi ndax sëñ bi moo ko tànn sëñ Tuubaa waxtu ma waxoon naa ko ci jotaay yi dinaa koy leeralaat moo waxoon ci làmmiñam ne sama njaboot gii ku leen nar weer bala ñoo fenn nga wow sama njaboot gi ku leen nar a weer bala ñoo fenn nga ko te man de maa ngi gëstu dugg ci àll bi waaye benn dëkk boo mas a dem ñu ne la mag mu bañoon sëñ diw moo mas a toroxal sëñ diw tedd nga ji moo ko moom ak i doomam amut koo mas a dégg mu béccingal waa kër sëñ moo fay gën a yées waaye léegi nag am dara mu da lay wala sëñ diw fi jaaroon bi woon mu ñaanal ko barke bi topp ko ba ko maamam di kenn mënu ci woon dara waaye bari na koo gis mu ñàkk li mu yor nga xam ne foo ko fekk ci ci ci ngareñu lay dëkk ak ab kaas tedd nga ji metti ko riiru magal gi tàng xorom sëñ bu ñu rag mu xol bi jeex comme seen ci télé bi nañ ñi bëgguñu yàlla maama ma ko waraloon kon nag noonu nañ jéem a doon yu tali bi rek te yem ci wasalaamaaleykum